te li mu leen jiitoo sax dafa bëri quoi donc loolu euh, ça prouve que ne président Ousmane Sonko dafa nekk ci xolu Sénégalais yi rawatina la jeunesse sénégalaise bi nga xam ne ñoom ñoo gën a am accès ci réseaux sociaux yeeg yooyu noonu. voilà donc discours bi dama jëloon ay points yu ndaw rek yoo xam ne bëggoon naa ci wax commenter ci tuuti quoi muy le choix de journaliste journaliste yi nga xam ne ñoom la choisir pour waxtaan ak ñoom. donc am na ñoo xam ne gis naa ñu commencé di ci critiquer di ci wax naan waaw la moo tax mu tànn ay journaliste xam nga waa ji du dafa sonn quoi moom lu mu def rek ay nit dinañ ci am seen grain de sel jéem ko ci diaboliser yooyu noonu quoi kom gars yi ñoom borom gémmeñ yi nàcc lañ duñ wax jàmm quoi te pourtant le président Macky Sall euh, discours à la nation yi mu daan def su jeexaan dafay def face à la presse doon choisir ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy interviewé Macky Sall a ses propres journalistes te ñu doful xam nañ ko partout ci presse en ligne bi hein ak ci euh, presse euh, classique bi xam nga ñu ànd ak Macky Sall so nekké borom xel deug yow xam nga ñi nga xamné Macky Sall lañuy ñuy liggéeyal te cellule de communication bi ñom ñoy tànn journalistes yi leen neex ah Ousmane Sonko tamit dafa am cellule de communication comme Macky Sall ni mu ko amé parce que kilifa la c'est le chef de l'opposition c'est un député c'est un maire voilà.

di Moustapha Diop ak euh, ki nga xamné mom moy grand Momar Diongo ak ak Ndeye Marème Ndiaye ak euh, beneen journaliste bi fa nekkoon ñep xam nañ ñooñu dañoo mandu nekkuñ ay journalistes mercenaires yo xamanteni xam nga euh, ils sont à la solde du Macky encore entre guillemets jeu de mots comme voilà le président Ousmane Sonko ak cellule de communication am nañ droit xol journaliste yi leen neex ñu toog ne ñoom lay defal interview ci presse en ligne bi chaque jour plateau yi dañuy dem ay nit benn rôle bu ñuy di Ousmane Sonko dañ leen di yónni na leen dem leen ngeen di saaga Ousmane Sonko leen di temps temps parce que ñooñu ñi ci ëpp ay jigéen ah, elle ne représente rien dans la société quoi. xam nga mënuñoo wax lu amal réew mi njëriñ mënuñoo wax loo xam ne bu ko nit déggee def ci am xam-xam mais c'est des insulteurs quoi ñoo xam ne dañ leen a former uniquement di leen yónni ci télé yi pour ñuy dem di saaga le président Ousmane Sonko journaliste yooyu tamit nekk ci presse en ligne bi du ñëpp nag ñenn ci ñoom ñoom lu xew rek ci at bi yëpp dinañ ci laaxaale président Ousmane Sonko pour ubbil nit ñi porte wala ubbil ñooñu porte pour ñu mën a saaga le président Ousmane Sonko amna des femmes yo xamanteni c'est des dévergondées ñëpp xam nañ leen ñu ngi def le tour des plateaux euh, de la presse en ligne voilà waxuma ñëpp je vais pas mettre tout le monde dans le même sac di le président Ousmane Sonko di ko mal di ko xas xam nga que ñooñu dañ leen permettre pour ñuy def loolu noonu kon ko xamanteni à chaque fois day ubbil ay nit antenne duñ leen laaj ci réew mi ndax mu ngi avancer laaj leen ci agriculture laaj leen ci développement wu réew mi nan la ñuy def ba am autosuffisance alimentaire nan la ñuy def ba am courant bu doy ba am ndox mu doy eau potable nan la ñuy def ba am des hôpitaux invité borom xam-xam yi quoi ñu wax ci wàllu économie ci wàllu développement mais cette presse là elle préfère inviter des des insulteurs quoi ñu ñëw cibler benn nit ñoo xam ne mooy Ousmane Sonko te ñooñu dañ leen di jox ay mots d'ordre parce que xam nañ nu mu demee gis nga ñun dofuñ quoi ñun ay nandite lañ xam nañ li xew ci dëkk bi voilà loolu motax nak président Ousmane Sonko euh, euh, journaliste yi nga xam ne dañoo tëddee njaaxaanaay ak cellule de communication am ñooñu lañ préféré pour waxtaan ak ñom. donc deuxième point bi waxna na ci euh, mbiru passeport am bi nga xamanteni dañ ko confisquer ci ay yu ñak fayda quoi ay tiaxan ay fen xam nga man pour man nit bokay boy booy passeportam diko def sous contrôle judiciaire dafa wara a nekk lu sérieux mais nous savons que la justice sénégalaise c'est une honte quoi Madame justice nous c'est logo balance la Madame, nit ñi xam nga ku ak nguur am doole ak doole justice dafa leen wara a mais justice bi ñi ñi les ñu ci bari ñi jité euh, yenn cours et tribunaux ils sont à la solde de Macky Sall parce que c'est le euh, président du conseil supérieur de la magistrature son ministre euh, de la justice mon mooy le vice-président donc kon nit ku la abal bët ko neex ngay donc loolu c'est c'est une problématique quoi ñëpp xam nañ ko loolu moo tax tey képp ku Macky Sall bëgg a faagaagal foofu la lay jaarale mooy séeraas bi maanaam mooy séeraasu ñenn ci opposant Macky Sall yi fa la lay jaarale accélérer ce dossier ñu yóbbu la kaso mu yàq sa casier judiciaire éliminer la yow dootoo bokkati loolu nak ñom euh mënuñ a réussir pour def ko le président Ousmane Sonko parce que borom fit la borom mbolo la té dafa am ño xamné dañoo am ci mom yaakar muy ay xalé yu ndaw top ci ginnaawam pour avenir au Sénégal ku ko nar président Ousmane Sonko peuple dañuy genn té woné nañ ko ci mois de mars bi ni passé donc justice bo xamante dafa wara a tëddee naay ci ay fen ci ay katch ci ay complot nga ci tié passeport nit ba paré nit ko xamné c'est un député nek un maire. Nek leader de l'opposition ko xamanteni il est appelé à être président de la république demain ngay téye passeport diko def sous contrôle judiciaire manam bu defone sax la la wax su fekkone dafa def ñu placé ko sous contrôle judiciaire war nañ ko mën jox passeport muy voyage parce que koku du daw donte bu dawé dina arranger Macky Sall parce que Macky Sall lim mu bëgg mooy toog Sénégal éterniser wu ci pouvoir bi kenn rek moo koy xañ moy président Ousmane Sonko waye lolu yëpp xam nañ du daw mais comme amanu ñoo am ci mom japp ko tëj ko dañ ne ki nañ ko barrer la route xam nga restreindre ay activités, nga xamne bu bëggee bouger du mëna bouger taw waxon na leen ne Ousmane Sonko mëna participer ci euh, réunion yi am à l'international que ça soit wa diaspora bi nga xamne ay partisans yam lañ wala ay conférence yo xam ne dañ ko ci inviter mëna ci participer virtuellement def nako au Togo xam nga récemment sur le Français, CFA donc kon euh, téye passeport bi loolu teguwul ci yoon té ñom chaque jour dañuy gëna wone Sénégalais yi ne ñoom mbir mi complot la parce que yow da nga ne xalé bu jigen dafa jign le président Ousmane Sonko daf ko violé yow nga jël xalé bu jigen bobu non dafa ko sous contrôle judiciaire bayiko mom mu am liberté di wax lu ko neex ba dem ci presse internationale bi sax ñu koy interviewé pour yàq deru président Ousmane Sonko légui ñi nga xamné ñom ay victimes lañ ñom dañ leena comploter muy le président Ousmane Sonko ak Ndeye Khady Ndiaye

xam nga euh, juge du huitième cabinet Mamadou Seck ci ñooñu la bokk parce que ñooñu bëggoon nañu leen enrôler bo boole leen ci dil bi mais euh, ils ont dit ñett dañoo bañ xam nga donc kon ñoom seen dil bi dafa échoué ñu jël passeport président Ousmane Sonko confisque ko ba pare toog nag euh, di wër ki nga xam ne moom moo war a remplacer Samba Sall président Ousmane Sonko wax na ko démb wër nañoo wër a wër a wër ba sonn léegi nag ñu dem jëli koo xam ne mbokk Farba Ngom la président Ousmane Sonko wax na ko nee na ci xeetam la jël ci nit ko xam sax mom gisoon na doon président Ousmane Sonko diko partagé ko juge la koku lañ jël daf ko doyen des juges <laughs> mu ne président Ousmane Sonko ba paré mu wax leen leen dossier bi amul dara lu ci parce que ay la ay nous la ba mu deal bi parce que li fi xew c'est responsabilité Macky Sall parce que bu bëggoon mu dak day dak ku non suñu fukki xalé ak ñent yu dee duñ dee mais Macky Sall moom mo bëggoon a ci occasion bi pour éliminer Ousmane Sonko ci ay fen pour mëna tok ci nguur gi éterniser wu té lolu mënta nek légui nak mu né Macky Sall mo nek à la tête du complot Antoine Diom ministre de l'intérieur ñep xam nañ ko parce que xalé bo xam ne dañ ko violé wuñ ko mu dem ci ay mbokam ñu jël ko jox ko ben corps d'élite de la police nationale muy BIP brigade euh, d'intervention polyvalente de la police bi nga xam ne police la doon police nationale ñu jox ko benn xale boo xam ne dañ ne kii kat dafa jiiñ benn opposant viol te am ñoo xamante ni ay kilifa lañ ci dëkk bi gënoon mérité lool xale bi pour bip di leen garder ñooñu bip mënu leen garder garder ñoo sax am policier bu simple waxuma la nak cordeli kon kañ Antoine diom mom bokku na ci biir bi parce que mooy ministre de l'intérieur mom mo jiite police bi kon bu waa bit bay garder xalé bobu nonou xam Antoine Diom. il est au cœur du complot Tout le monde a jabar sax vous touram parce que du une femme de valeur luñ ko xamal ci lu dit duñ vous sax du wax quoi elle est naturellement mauvaise voilà avez xam nañ ne avez ci la parce que na fi di xulo ak avocat gabi di ak mom day di a bind plainte ak bindu makar keneen ki sax dem ba wax ne il a reçu Adji Sarr euh, quelques jours avant la plainte quoi donc mu ko doon laaj ay conseil kon kooku weer na boppam moom jëfur na bu yàgg te kooku goro Mamour Diallo la kon loolu mooy yóbbaale Mamour Diallo ci deal bi oto bu jëli woon Adji Sarr tamit ci salon ba oto Mamour Diallo le chauffeur ba chauffeuram la voilà Moussa Fall rôle bu mu ciy joué Ousmane Sonko buy wax xamna lutax muy wax il parle en connaissance de cause parce que il n'est pas n'importe qui lu muy wax daf koy xam parce que dafay am ay renseignements comme ni Macky Sall di am ay renseignements donc Macky Sall xëy mo koy parce que mom moy le président de la république amna ay nit yo xam ne mën nañoo jege Macky Sall sax ba paré di informer Ousmane Sonko lolu c'est impossible C'est c'est possible kon autant pour moi kon tay ñëpp xam nañ ki nga mom moy euh euh qui général bi Fall Moussa Fall te remplacer Jean Baptiste ak ni mu remplacer Jean Baptiste ni ñu accéléré départ am te kooku dafa waroon a dem.

accès jeunesse ay ndaw rew te yow tu es censé les protéger mais parce que ñoom dañu am droit ni ki lañ andal nga da ngay bëgg abattre euh, opposant bobu non pare nga yow pour mater jeunesse bobu non pare nga pour tirer ci sen kaw pour jaay leen doole pour mëna euh, atteindre son objectif moy éliminer un potentiel adversaire pour mëna yow éterniser wu ci pouvoir bi kon donc lolu leer na nañ complot bi ñum ci tudd ñëpp ñooñu

benen bi moy affaireu Casamance bi dafa fallu maire au lendemain de son élection rek ñu commencé ñu ne Salif Sadio euh, jàpp na en otage des militaires sénégalais yo xam dañu nékkon ci mission wu cdao té dafa leen dara quelques jours après mu bàyyi leen légui nag nga gis ñu yoni sen gaay nak xam nga ñu dem ci télé yi commencé nan président Ousmane Sonko lu tax du wax ci affaire ba pare bàyyi Macky Sall ah, Macky Sall mi nga xam c'est le chef suprême de l'armée nek le président de la République. waa CEDEAO tamit nga xam ne ñoom ñoo yóbbu suñu militaires yi ñu nekk sous la bannière euh, de la CEDEAO demoon mission CEDEAO Gambie CEDEAO googu noonu waxuñ ci te CEDEAO am na président CEDEAO boobu noonu waxu ci kooku moom mooy président bu Ghana bi mooy euh, euh, Nana Addo <laughs> mais kenn dégg ko mu prononcé wu ci ba pare nag ñoom ñëpp ñu ciblé Ousmane Sonko koo xam ne moom député maire la moom amul benn prérogative pour di wax sax ci affaire boobu noonu ndeke dañ ko bëggoon a piéger moom xam na ndëgg sërëx bu ñu ko bëggoon a tegal xam nga bëgg parce que chaque jour ñu ngi koy bëgg jaxase ak sénégalais yi bu waxee ñu ne voilà gis nga dafay jox jokkoo Salif Sadio tey ji bu ci waxoon ñu jékki-jékki rek bàyyi militaire yooyu noonu ñu ne voilà gis nga am na ay lien ak Salif Sadio démb leeral na ne moom xamul benn chef rebelle wax na tamit wax joo xam ne man waxoon naa ko xëy na daf ma dégg ñi nga xam ne ñoo ànd ak Macky Sall te <laughs> dëkk Casamance ñoom kenn du leen wax na ay rebelle lañ mais ñi nga xam ne ñoom ñoo contre Macky Sall te dëkk Casamance ñoom la ñuy taxé de rebelle mooy Guy Marius ak Ousmane Sonko te yéen ngi dégg laaral na sax ne moom du cent pour cent Casamance de parce que yaayam Ngom la sant dëkk xombal mu wax ne maamam Sow la sant xam nga papam moom mooy waa Casamance te pourtant am na ay ñu ànd ak Macky Sall ay Assome Diatta xam nga ay ñoom Benoît Sambou ñoom euh, Ablaye Balde ñooñu ay cent pour cent Casamance lañ mais kenn mosu leen na wax ne yéen ay rebelle ngeen ak du Sané président bu Casa Sport léegi mën na leen. ku ànd ak Macky Sall daal yow doo rebelle mais ku contre Macky Sall dëkk Casamance <laughs> yow rebelle nga donc loolu yëpp leeral na ko président son Sonko nag xam naa ñu bëri dinañ yi mooy naa feq yi rek nga xam ne toujours ñoom bëgg di diaboliser président Ousmane Sonko rek moo leen tax a jóg dinañ fi génn naan waaw discours am dafa diir xam nga il est violent xam nga mais Macky Sall moo mel noonu gis nga Macky Sall su fekkee da ngaa nooy nekk koo xam ne amoo wala nga nekk ni koo xam ne tu n'es pas dur avec lui dalay sànq. parce que mom amul yërmande gis nga Khalifa sallou buñ ko fi convoqué non mu nek di joy, euh, Karim Wade naan ay j'ai confiance à la justice de mon pays c'est-à-dire damay dem uyu ji gis nga nuñ len def président Ousmane Sonko nag du def loolu Macky Sall diko toroxal diko yobu yóbbu Seras moy tribunal moy parquet ba da ngay dem rek ñu mbal la dor le dóor la mandat de dépôt donc yooyu yëpp wax na ci leeral na ko leeral na timit accueil lion yi lutax demul te nee na bu ko fekkon Dakar sax du dem pourtant il n'est pas obligé d'y aller hein. ñu bari nak jaaré nañ fa naan waaw bëggul sénégal xam nga ñom ñoom ñoo yónni nit ñi ñom ñuy wax yow ko xamanteni dafa la dakk impôt et domaine toroxal la te defoo ko dara parce que ànd ak moom te moment bobu mu lay dakk naan la ay secret professionnel bobu ay nitam mamoud diallo ak euh, mam boy diawo ak amadou ba ak euh, abdoulaye daouda dia abdoulaye daouda diallo ñom ñep ñu ngi won fofu di politique ba paré te dafa len dara mu bayi len parce que Ousmane Sonko daf ko contre moo tax mu toroxal ko dàq ko jaay ko doole mu dem cour suprême xam nga moom mooy nommé ñëpp cour suprême débouté ko moom Ousmane Sonko cour suprême kenn du fa dem ba gaño Macky Sall cours et tribunaux yi nekk Sénégal yëpp kenn du fa yóbbu Macky Sall ba gañe ko ay CEDEAO nga koy mën a yóbbu gañe ko te faalewul CEDEAO respecté wu leen sax voilà donc mu ne moom dafa tombee nag mu doon dem euh, Poroxaan bi mu egsee bay génn Kaolack noonu ci la ko doyen Habib ko xam nga léegi nag si lañ waxtaanee après délégation bi Barthélemy Dias dem Khalifa Sall dem ak ki nga xam ne moom mooy euh, Déthié Fall donc te Ousmane Sonko nettali na leen ni mu leen def voilà amul kenn ku ci photo ak yi dafa bëggoon na rek wan Sénégalais yi ne waaw dajale naa opposition bi ñëw nañ ñëpp benn lañ te au fond du ko sax gëm quoi du gëm loolu léegi yow koo xamante ni daf la yéene kaso yéene yàq sa carrière Macky Sall lu mu def Ousmane Sonko yëpp boolekaat benn xale jigéen jiñ ko viol fekk boobu dem nañ voté euh, loi assemblée nationale criminaliser le viol am na sax ñuy wax ne loolu lañ processus la woon pour ñu mën a jiiñ Ousmane Sonko loolu moo tax ñu gaaw euh, voté loi bi criminaliser ko te jaarale wuñ ko ci yoon encadré wuñ ko sax quoi parce que Sénégal suñu waxantee dëgg ñun ñëpp nous sommes en sursis ñun góor ñëpp mën nañ ñu jiiñ viol rek door ñu ci kaso bi te fekk sax violé wuñ xam nga donc loi bala nga kaa voté da nga koy xool xoolaat ko xam nga jigéen ñi fonk nañ leen bëgg nañ leen respecté nañ leen waaye tamit nag voilà duñ leen jox yenn faveur yi ba ñoom buñ ñu bëggee sax tuumaal wala ñu tëj luñu ñu tëj luñu donc nag voté nañ seen loi jël Ousmane Sonko yàq deram ba pare nar ko yóbbu kaso pour yàq carrière am dàq ko ci administration bi nga xam daf ko mérité parce que dafa jàng def concours ENA dem nekk impôt et domaine nekk inspecteur des impôts et domaine loolu yëpp nga def ko ko ak yàq der yi ngay yàq deram saaga yi ngay yónni nit ñi ñu koy saaga léegi nga ne équipe nationale jël na coupe rek da ko war a oo waaw mu ñëw taxaw ak yow voilà te nekkut loo xamante ni lu lu lu lu kii la quoi euh, lu sincère mais nañu waxante dëgg Macky lu muy def gëmu ci dara loolu nag la am na droit du ma taxaw ak moom xam nga donc yooyu yëpp expliqué na ko te defe naa ne leer na en tout cas daal lu ñuy wax ci président Ousmane Sonko mooy góor dëgg la ku am fit la te wax na tamit na xale bi na ko ay mbokkam bàyyi xel. bala ñu kaa ray parce que wax la waxloo nañ ko limuy doon wax yeb dañ ko doon wax la nañ ko ne ko ay da ngay wax ni man tante na pour xaru ay yoon yoon xam nga xaru ku ko bëgg def do tante da ngay xaru xaru kañ yomb na mën nga taxaw ci balcon sax seen oto di ñëw nga plonger wala nga jam sa bop wala dara xana fu mu nekk kenn du wax ne amul possibilité yum xaraw donte ñaan luñ ko yalla nak mu dee nag xam nga mais lolu ñu bari tiit nañ ci analyser nañ ne man nañ ko sax éliminer pour sul dossier parce que xalé bi buñ ko bayé mu wax dafay wax wax yoo xamante ni wallahi yuux dina jub fu ñu ko foogewul parce que fu ko foogewul parce que deal bi ñu ci bokk dañoo bëri am na ñoo xam ne sax président Ousmane Sonko tudd leen xañ na voilà daf leen di suturaal sax quoi ñi gën a fës xam nga ñooñu la tudd mais président Ousmane Sonko ñi mu ñàkk arrangé Sénégal ak ñi koy xeex Sénégal dañoo bëri te ñu ngi ci entité yëpp secteur boo dem ci Sénégal am na ñoo xam ne bokk nañ ci ñi koy xeex parce que dañoo jàpp ne kii dafay menacer seen ay intérêt parce que dafa am boo dëngee yow doo bëgg ko jub boo ajee doo bëgg ko xool ci kaw ku teen quoi boo ajee doo bëgg ku teen boo suulee doo bëgg ko suule donc loolu mooy seen problème ak président Ousmane Sonko waaye nag président Ousmane Sonko daal ñu ngi koy gërëm di ko sant ci fitam di ko encourager bu baax a baax di ñaan yàlla yàlla musal ko ci noonam ñaan yàlla fépp fu mu bëgg àgg mu àgg fa incha allah asalaamaaleykum wa